mbokk internet yi rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel seen chaîne YouTube bii di IYAT TV mën nañu xol bu jeex ak naqar tax Sénégal gépp rek jamono bi ñu toll nii nekk ci bët set wala sax guddi gu jamono bi ñu toll nii ñëpp daal di remarqué li nga xam ne rek moom moo fi xewandoo di lu nga xam ne mën nañ ne bët yëpp daal di nañ ci tooy muy dugg ci guuta gu nga xam ne rek mën nañ ne am pax la mu xóot xóot moo xam ne rek lu la ca génnee du nekk lu yomb te olof njaay nag am na lu mu wax te mooy mbuus mën naa naaw ba dugg ci am pax wante kat mënta naawaat ba génnaat sa loole mën nañ na moom mooy li nga xam ne rek moom moo xew ci jamono bii ñu toll nii gannaaw coono metit ak naqar yi nga xam ne rek sénégalais yëpp ñi ngi koy daal di dundandoo mu nekk lu nga xam ne rek lu metti opinion nationale internationale rawatina ñii nga xam ne rek ñoom ñoo nekk ci biir réew mi di ay parents di ay mag di ay rakk di ñu nga xam ne rek mën nañu réew mi dalee na yitteel lool ku waxul lii wax la ca des gis nañ nag ñii nga xam ne rek ñoom ñooy suñuy njiit jamono bii ñu toll nii ni nga xam ne noonu la ñuy naxee suñu askan mu nekk nax gu jéggi dayoo wante kat gannaaw jeunesse bi léegi daal di nañu yeewu kenn mënu leen a manipuler ci yennata ci ay nax ba tax niki démb mën nañu remarqué nañ lu baree bari ci ay fee yu nga xam ne rek daal di nay jot a xew gannaaw xibaar bu nga xam ne rek mën nañ ne jot nañ ko ci 2A TV muy xibaar bu doy waar doy waar sax bu nga xam ne rek mën nañ ne nemmeeku du lenn lu dul mbir mu nga xam ne rek mu ñu mësta yaakaar fii ci réew mii di Sénégal la ci benn xibaar buy wax ne kat gannaaw bi manifestation yi daal di jàll gis nañ ci géeju jàmmalaay gi ñu indi fa li nga xam ne rek moom mooy ay cabion frigo yi nga xam ne rek mën nañ dañoo chargé ay néew ba fees dell si ñu dikk daal di koy tuur fi nga xam ne rek moom mooy géeju jàmmalaay gi mbir mi ni mel nag xibaar bi ñu ngi ko jëlee ci 2A yi ki nga xam ne moom moo xam ne xibaar bi ni mel moom moomee jot naa yëg de kenekat moom moo ci teg ay bëtam ñuy tuur li nga xam ne rek moom mooy ay doomi aadama yu ñàkk seen bakkan li ci gën a doy waar te mu nekk remarque bu nga xam ne rek ñu baree bari daal nañ koy def gannaaw ab diir gis nañ benn waay bu nga xam ne rek mën nañ ñee benn rapport la bu daal di génnee ci tefes ga te rapport boobee mën nañ ne moom it gisoon nañ ko ñu jàpp ko ci réseau sociaux yi doon ko maltraité mbir moomee nekk mbir mu nga xam ne rek mu jéggi dayoo la nekk mbir mu nga xam ne rek mu doy waar a doy waar la gannaaw fitna ji nga xam ne rek daal nay juddu ci réew mii di Sénégal di fitna ju nga xam ne xam nañ commencement bi xam nañ li ko sos wante kat fitna buy nelaw kenn waru ko yee ndaxte kat la ko commencé mën nañ ne nekkul ne rek moom moo ko mën a jeexal définitivement te mën nañ ne ñaari fan yi li Sénégalais yi dund nekk lu nga xam ne kenn ñaanatul yàlla mu répété wu te li ñuy ñaan moom mooy na fi yem donte nag résistance résistance bi nga xam ne ñi ngi koy faral di wax wante kat Olof Njaay day faral di wax ne maanaam ndimbal daf saa war a fekk loxal boroom yàlla yàlla bay sa tool ñun ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi ñoo war a taxaw suñum réew jàppale suñum réew rawatina nag ñi nga xam ne rek ñoom ñoo yor ay ndombay tànk ku si mel ne président de la république mi nga xam ne mën nañ ne jamono bi ñu toll nii moom mooy ndeyi mbill gi moom moo di njaag li olof njaay di wax ku di njaag du kenn ku dul suñ président suñ ministre de l'intérieur ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo fi yor ay ndombay tànk di wax def leen ñu def di wax tere leen ñu daal di bàyyi jamono bi ñu toll nii liñ leen di ñaan du lenn lu dul ñu yërëm seen askan ndaxte ndaw ñaa ngi nii war a jàngi mënuñoo dem lekkool doomu aadama yi bari na si ay parent yu nga xam ne rek tabaski moo leen tiital ci jamono bi ñu toll nii wante kat mënuñoo sax am luñ ko lijjantee ñi xiif war a lekk ñi nga xam ne tey mën nañu bu ñu xëyul dem ca marché ba duñ taal añ ñoom ñëpp jamono bi ñu toll nii ñu ngi fatu ci seen kër yi ndaxte olof Njaay dafa wax ni bala nga ne naam nefa fa nekkat bala ngay tal ay lekk ak ay naan daa fekk nga nekk ci jàmm kon ku nekkul ci jàmm lekk ak naan doo ko talagun kon nag kiif dina la rey kon nag jamono bii ñu toll nii ndaw ñi mer ba futt te li mën a reglu situation bi mën nañ ne du lenn lu dul benn kàddu bu nga xam ne rek moom la ñuy diglu kon nag est-ce que jënn fitna ji jar na ko mbir moomee tax na au début waxoon nañ opinion nationale bi ñoom ñëpp euh, internationale ñi ngi yëy yàbbi ku ci mel ne ki nga xam ne rek moom mooy Juan Branco mën nañ ne moom it gis nañ ko tout le temps ñu ngi jàpp ci li nga xam ne moom mooy combat bi ci ay révélation yu nga xam ne mi ngi koy faral di ko def saa su ne di yëkkati ay kàddoom di yëy yàbbi ci problème bi nga xam ne mën nañ ne problème bu sérieux la donte nag mu nga ba diwaanu France wante kat li ñuy faral di wax rek nit moom buñ ko tooñee ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan war nañoo xam kan moo àqu kan moo yelloo lii di dëgg te dëgg googe li ñuy wax bu fekkente ne dafa réer ci am penc ñuy xëy suba ba ngoon di ko wër mën nañ ne kilifa juum wala nag daa am kuñ jox dëgg te moomul dëgg dëgg googe di génn dëgg gi nga xam ne rekk kiñ ko war a wax du kenn ku dul kii di suñu président ndaxte tey bu réew mi duggee ci guuta gu toll nii ba lu mat fukki bakkan ak juróom-benn ci li nga xam ne loolu lañ jot a xaymaa gun te nag bokkut ñi nga xam ne rek dañuy faatu te kenn du leen si limaale ndaxte kat bari na ñu nga xam ne tey peut-être mën nañoo jaare fii nii ndaxte niñ leen di maltraité ci manifestation yi jàpp dóor ba sa yaram wi commencé di yàqu am si ñu nga xam ne tey fa la ñuy jógee jële fa ay laago jële fa ay gaañu-gaañu yu nga xam ne rek ba ni ñuy demee àllaaxira loolu moom moo leen di topp boolewuñ si ñooñu sax kon nag bu fekkente ne nit nit rek la mën a doon te tamit xol xolub yërmande en tant que jullit fii ci réew mii di Sénégal ñu ne seen président moom lay woo di kii di Macky Sall kon nag war naa delloo si war xelam bu baax a baax te xam ne kat nguur kenn du ko ñëdd boo ko bëggee ñëdd boo amul sens dinañ la daal di ñëdd yow ci sa bopp nekkat neexaay ba ku nekk xam na ko wante kat topp sa bakkan moom mooy liy gaañ doomu aadama yu baree bari nekkat bu fekkente ne da ngaa jàpp ne saw askan ñoom tout le temps dañuy topp ci sa gannaaw dañ koy jàppee am muus rek mën nañ ne bu fekkente ne da nga koo xiirtal mën naa daw wante nag bu demee ba sës day riposte tourné lay def ci sa kaw la jëm te askanu sunu gaal jamono bii ñu toll nii mën nañ ne foofee la ñu daal di toll nekkat gis nañ lu nga xam ne rek moom lañ leen di teg ci ay fitna boole seeg coono di leen di maltraité di leen di teg lu nga xam ne seen yaram àttanu ko seen xel àttanu ko seeni bët di si tegu saa su ne kon nag bu ñu fippuwee dañoo war a fippu bu ñu fippuwul dañoo war a fippu donte la nag nekkul ne woote wala lenn loo xam ne day dellu ci wàllu fitna wante kat wax li nga xam ne rek moom mooy dëgg gi moo ñu ko yóbbee. kon naka bu fekkente ne ñun ñëpp gëm nañ ne ay sénégalais lañ te benn bopp la kenn mënu ko xarñaar nañu delloo si waat xel yi takku taxaw te xam ne liggéey moom mooy maye lépp ñàkk liggéey nag mën nañ moom mooy xañe lu bëree bari loole nekkoon ay jàngat yi nga xam ne rek andi woon nañ ko ànd si ak yéen ci seen yu YouTube bi di IYAT TV di leen di jaajëfal di leen di wax ngeen di wéy di abonné